Fatou Samba di présidente des femmes transformatrices maanaam jigéen ñi soppali jën si site de transformation bu Xelcom Bargny ndax euh, ku nekk Bargny juddoo fi màggi fi rek xalaat naa ne transformation day nekk sa deret ndax activité la boo xamante ne dañ koy doon na si maam si ak sët donc fu di ku fi ku fi juddoo rek en général xam nga nan la ñuy transformer donc du du du secret pour kenn métier mu am mu noble métier mu am mu xam ne nit ku si nekk dangay ngay da ngay dolli gëm sa bopp ndax dëgg amul amul tappale amul def nii pour am lii amul def nii pour am lii da ngay liggéey gañe baa nga liggéey pex mais liggéey gañ gañee si ëpp te la ngay gañe moom ngay dundali sa waa kër donc day xaalis ba xamante ne da nga koy am si si si amin wu rafet amin bu nga xamante ne sa njaboot duñu ko dundee te du leen amal benn ngaaj parce que euh, amin la boo xamante ne si ñaxalee jóge yàquñu environnement si wàllu fekk luy dund ñu rey ko mais dañuy fekk la nga xamante ne dee na peut-être mën na yàq ñu jël ko réutiliser euh, réutiliser ko mu nekk suñu combustible. feer foo ko toggee te li may wax ne mbaxalum xeer euh, wañ toggag wañ mënu la jur jàmm mooy na bu ñu toogee ba usine de sidérurgie xam ne wañ lay togg wañ gu ñu jëlee fale mi wañ goo xamante ne dañu koy jëlee si si si biir dëkk bi muy yi ñu euh, utiliser ba pare muy feeraay yëpp ñu ne fii la ñu koy togg si biir Bargny fekk centrale à charbon baa ngi polluer biir Bargny soo ko si mu ngi polluer biir Bargny ah ñun de tiit nañ suñu lendemain mais di ñaan yàlla rek yàlla bu ñuy yegg foofu non sant yàlla macha allah parce que tam li ñuy liggéey si safara yëpp dañu koy liggéey ak conscience kenn ku ne fi ngay liggéeyee yàq sa morom a fa ne donc ni ngay gere sa bopp mbaa bu ji jéem a sauvegarder sa bopp pour bañ a lakk noonu ngay fexe itam keneen bañ a lakk mais peut-être bu dee si wàllu saxaar te xam nañ ne saxaar bi nga xam ne mooy génn si courbe dara rachis bi amul météo donc saxaar la mais bokkul ak saxaar yi nga xamante ne dafay yàq environnement am de di di ko méttit lu di koy xeex ba suñu dernière force parce que ñu lii la ñu am amuñu meneen métier surtout les femmes boo gisee côté bii ñu xaw a am autonomie tuuti toppuñu si góor di daw nekkuñu si mbedd yi di taxawaan léegi la mais bu jëkkoon lébu doo si gis sàcc doo si gis agresseur doo si am dara parce que boo xëyee si sa biir kër dangay ngay liggéey léegi am léegi toog ak say njaboot sa yaay sa papa say rakk ngeen mën kaa dunde te kenn du am problème état du Sénégal dellu gannaaw xam ne les femmes transformatrices ay jigéen ñu am jom lañu d' boo ne nangam ñu ne kenn ku ne la ngay liggéey moom ngay aar mais ñun dañu bokk or aar la ñuy liggéey ba pare jàppale sax état si ni nga xam ne ñoom dañ leen waroon a jox ay emploi ñun ñu def ay di di employé suñu bopp di seet ay employé di leen fay ndax femme bu fi nekk entrepreneur la manuma liggéey mais damay jël fukki nit ñu damay liggéey chaque jour ma di leen fay à la tâche loolu ma di leen si remercier bu baax ndax du sama mbóom mu gudd moo tax ñu fal ma du sama xëy musóoru moo tax ñu fal ma dañu bokk fii di fi liggéey ku fi tekki mbaa ku fi baax jigéen a nekk sa gannaaw léegi damay wax ne jigéen ñi nekk ñoom ñoo nekk si kanam ba pare toog lu bàyyi seen i ak seen i càmmañ ñu dem donc daal nañ ñu jox cër nañ ñu gën a sóoraale nañ ñuy laaj ñuy wax ndax am na lu bëri lu nga xamante ne ñu ngi dem ba mu toll si yàq bu ñu si impliqué woon jigéen si prise de décision yi heure bii dina fekk Sénégal romb fii heure bii dina fekk développement romb fii di ñaan di yàlla rek euh, jigéen ñi yàlla gën leen a may taxawaay yàlla gën leen a may euh, nu mu tudd euh, tawféex ba xam ne lépp lu ñu entreprendre yàlla yàlla jàppale nañ si ba mu doon u réussite mu réussite boo xamante ne ñun ñëpp incha allah ñoo koy bokk man euh, Fatou Samba di président des femmes transformatrices si Sidou Khel Compagnie maa ngi souhaité à toutes les femmes du monde euh, bonne journée une bonne journée de la femme ñu féete ko si jàmm ak si salaam